bismillahi irrahmani irrahim asalaamualeykum ñu dellu si waat ziyaare mbokk yu tedd yépp waaye di leen ndokkeel ci weeru barke bi di shahru ramadan question numéro on dit que l'arrivée d'un missionnaire d'Allah témoignent de la miséricorde divine, comme par exemple la mission des prophètes. En fait, concernant le prophète Mohammed paix et sur lui, Allah subhanahu wa a dit dans le Saint-Coran, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم Alors, que signifie réellement pour le monde ghaib et le milieu l'arrivée du missionnaire de la fin des temps. Macha Allah. Que signifie réellement, dans le monde ghaïb, l'arrivée d'un missionnaire de la fin des temps kon ñu commencé ci monde ghaïb foofu taxaw seetlu biñ fay def mooy dañuy gis ni ku mës a yore mission universelle rek yàlla indi la ci kaw suuf ngay jàllale message yu islaam suñuy xool sa base bi nga xam ni ñoo la ngemb indi la dañuy wax ni monde ghaib seen loxo mi ngi ci biir léegi nag gis-gis gi nga xam ni moom la monde xayb di am ci missionnaire biy ñëw ci aaxiru zaman ndax yaa ngi junj léegi ni dañuy gis ni missionnaire bu ñëwee rek dafa am miséricorde boo xam ni daf koy indaale kooku defe naa bu ñu jàngatee ñëwu yonent bi sallallahu alayhi sallam yàlla wax na ci alxuraan wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin kon dangay gis sens bi nga xam ni rek ñëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ko waaye nga gis itam dañ ko junjee ci laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun aleykum bil muminina raufun rahim benn bu ca nekk kon dafay am jeexital su ko defee ci jamono ji muy ñëw ci jamono ji muy ñëw la muy jëriñ jamono ja ak li muy jëriñ aussi peuple bi muy fekk si benn bu ca nekk dafay laaj lanoo tuddee taxaw seetlu waaye bu dee xëy bu ñoom ci seen wàll ñoom danu gëm ni bu yàlla décidé indi missionnaire ci kaw suuf seen vision ñoom mooy yàlla dafa décidé indi lumière indi lumière am ci kaw suuf comme li mu wax ni allahu nuuru samawaati wal ardi yàlla saalihiina yi lay leeralee suuf moo tax ci monde xayb dañu jàpp ni yàlla su décidé indi missionnaire ci kaw suuf yàlla dafa décidé indi leeram ci kaw suuf xam nga moo tax missionnaire borom bi su ñëwee ci kaw suuf nga mën a dégg ñu ni moom mooy xalifatullahi fil ardi maana c'est le représentant d'Allah sur léegi nag xay bu ñoom dañu si kontaan parce que dañuy gis ni ñi nga xam ni ñàkkoon nañu am ku leen gindi maanaam ñi ñàkkoon am ku leen guide ci siraatal mustaqim wàcc bi missionnaire bi di wàcc ci kaw suuf loolu dana doon sens ci ñoom loolu dana doon sens ci ñoom sens boo xam ni ñi amul woon ku leen guider ci siraatal mustaqim léegi dès à présent daañu ko am lu tax parce que missionnaire bi ñu ni ñëw na boobu benn la ci seen gis-gis beneen bi mooy dañu gis ni nit ñi fu ñu tollu ñi nga xam ni dañu gëm yàlla fu ñu toll dañuy wut jege yàlla rey bu aussi dañuy gis ni maanaam munoo jege yàlla lu dul nga xam ci ban principe ngay àndeek moom te yàlla su dogalee missionnaire universel mu di ko wàcce ci jamono dafay fexe ba principe boobu nga xam ni ca la nit di jaare ba mën a xam na muy àndeek yàlla jege ko principe boobu yàlla daf koy def ci missionnaire universel boobu loolu aussi vision la bu ci waa xayb di am beneen bi mooy xay bu dañuy gis ni maanaam dina am koo xam ni ci jamono ji yàlla dina ko ruse dina ko ruse xeetu sayyidina muhammad ñu ni kan la yàlla di ruse xeetu sayyidina muhammad ñu ni mooy su yàlla demee ba wàcce missionnaire universel am ci aaxiru zaman kon da ngay gis vision yi ci monde xay bu di am dafay bare waaye da gis ni côté boo ci xool ci seen façon gis-gis ñoom la leen ci ëppal solo mooy lumière bi nga xam ni lumière bi nga xam ni ñoom dañuy yëg ni missionnaire boobu jële na ko foofu ca xayb te fas yéene ko indi ci kaw suuf kon ñoom waa xayb dañuy xool comme si ni yàlla décidé na yàlla décidé na jël benn sover wàcce ko ci xeet wi pour ci jamono jooju ñu toll muy ci ay jamono lëndëm ci ay jamono réer kon yàlla indi leen ku leen gude ci siraatal mustaqim kon xëy bu ñoom loolu dafay doon loo xam ni bés bi missionnaire bi di wàcc dafay mel ni feet ci ñoom looloo tax ngay gis su yàlla décidé indi missionnaire ci aaxiru zaman at bi nga xam ni moom lañuy ñuy introniser missionnaire bi at boobu dañuy wax ni c'est l'année de la lumière moo tax ngay gis yàlla su décidé indi missionnaire universel ci aaxiru zaman at bi nga xam ni ci la ñuy introniser missionnaire bi da ngay gis ni dañuy wax ni c'est l'année de la lumière xam nga lu tax ñu naan c'est l'année de la lumière mooy année boo xam ni boo demee ca xay ba ndaje dafay am ndaje bu fay am nag du maanaam rek ay nit ñi ngay yaakaar ni ci shahada ñooy daje déedéet xëy na nit ñooñu sax dina ci am ñoo xam ni amoon nañu dund shahada waaye ñay daje la ca ëpp ca xay bu la leen di fekk maanaam dootul doon nit ñuy dund ci jamono ci kaw suuf day doon ay wëli yàlla yoo xam ni yàlla yéege na leen ci grade bu kawe ñoo xam ni dañuy am benn assemblée bu ñuy organiser ñoom wëli yàlla yooyu ci biir assemblée boobu ay malaayika sax dañu fay assister ay yonent ay xutbu bokk na ci ñi yàlla jox garaat ñi nga xam ni ci ñi gën a néew ca ñamu tibbal moom borom bi dañuy fekkee assemblée boobu léegi nag assemble boobu lii seen njëriñ mooy bu ñu taxawee ñoom assemble ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo koy dirige Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif mooy secretaire général bi la ñuy introniser ñoom assemble boobu la ñuy taxaw nag yëkkati intronisation ba nga xam ni moom la ñuy defal que ñoo tuddee le dernier missionnaire de la fin des temps année bi ñu war defee loolu nag année boobu dañuy wax ni c'est l'année de la lumière parce que ñoom xay bu dañuy yëg ni missionnaire bi su ñëwee lu capacité de pouvoir euh, rëy rëy ñoom li ñu jàpp ni moom lay indi dañuy jàpp ni leer lay indi lumière lay indi parce que leer moo mën a fekk xol yi lëndëmoon mu leeral ko moo mën a fekk nopp yi du du nu dégg mu fexe ba ñuy dégg waaye moo mën a indi yëg-yëg aussi ci roox kon missionnaire bi moom buy ñëw ak lu mu mënta indaale ci pouvoir ñoom dañuy jàpp ñoom waa xëy ba ni lumière lay indi léegi nag lumière boobu xëy bu ñoom dañuy ñee képp koo xam ni dañuy ñee képp koo xam ni maanaa yëg nañ ni yow daa bénéficié wu ci lumière boobu moo tax missionnaire bi buy ñëw ñi muy fekk si ñoom ñooñu xëy bu dañ leen di ñee lañ leen di ñeewee mooy dañuy wax ni am na lumière bu jóge ci xëy bu ñu fas yéene ko yóbbu ca monde shahada te ña nga xam ne nag ñoo cay jëriñu am nañu sens ñoom di dund ak missionnaire ba maanaam ñoom ñu ngi dund ak moom mën na am sax ñu nekk ay compagnons kon ñoom ñu ngi dund di ci jëriñu ci lumière boo xam ne xayb lañ ko jële ñuy dund ñoom ci kaw suuf ànd ak missionnaire bi di ci jëriñu ñoom vision waa xayb ci missionnaire ba ñoom façon vision boobu lañ ca am li ci des nag mooy ñi muy fekk si ci shahada ñi muy fekk ci ci shahada lumière bi muy indaale fuyu daat ya danay bare ba kenn ku nekk ci ñoom daa ci jëriñu mën nga ci sax nag di jëriñu te même doo yëg ni ci ngay jëriñoo xam nga boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla indee ak mission benn bés yonent bi tëdd ci benn ndés benn sajaada boo xam ni dafa xotteeku ña ngi ko ñaw kenn ci compagnon yi du Umar ndeysaan daal di ñëw xool ko ni ko yaa muhammad mu ni ko labbayk yaa umar mu ni ko yaa ngi tëdd ci sijaade bu xotteeku ñii nga xam ni gëmunu yàlla ñoom tëdd ci seeni étage te seeni étage yooyu ci sa barke lañu ko amee yonent bi xam ni fa mu tëdd fa mu tëdd fi umar di xool ak choc bi mu am ak réalité xaqiiqa ba fa mu ne bokkul ca la ko yonent bi pour dalal xelam ni ko Umar man prophétie laa yore prophétie mooy nubuwa mu ni ko prophétie bu doon jaay ci marché bi ndax yow Umar gis nga ko am njëgu xaalis bu tolloog mën ko jënd Umar ni ko gisuma ko yonent bi ni ko kon maa leen ëppale ndax man prophétie laa ame donte sax fa ñu tëdd ci sama barke la leen ko yàlla defale duma leen ko xoolee ndax la ma amee moo ko ëpp ni ko ndax prophétie kenn du ko jëndeeg leneen te dëgg la moo tax ngay gis ni missionnaire bi moom bu jógee foofu xëy ba appréciation biñ ciy def mooy naw bi ñuy naw surtout ñi nga xam ni ñoom la missionnaire bi di fekk si parce que dañu yëg ni am na lumière bu jógee ci xëy ba fas yéene wàcc ci àdduna ñoom ñuy dund ci àdduna nekk ay compagnons di ci jëriñu kon loolu mooy vision waa xayb ci bu missionnaire universel day ñëw euh, ci axiru zaman su ko defee ñu ñëw ci sa deuxième question macha allah euh, ngay laaj aussi ni ban vision moom la milieu divin di am ci missionnaire universel de la fin des temps buy ñëw xam nga le milieu divin foofu guddi amu fa bëccëg amu fa organisation rek moo fa am yàlla dafa dogal dans le milieu vin amul lu dul organisation maanaam ñoom lenn lu ca ne dañ koy jàngat xool ni ko yàlla namme ñu organiser en fonction en fonction mu deme noonu nga yàlla dafay wax ni innama amruhu ija arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun yàlla su amee lu ko soob rekk dafa naan nekkal mu daal di nekk gis nga baat boobu muy wax nekkal moom yàlla mu mu daal di nekk yàlla buy joxañ di wax nekkal la ca ëpp ca dogalam ya ca la ñoo tuddee dans le milieu divin fa la koy jële mais li yàlla di organiser waat bala nga xam ni bu nee nekkal rekk loolu daal di koy tontu daal di nekk la ca ëpp ca organisation boobu it yàlla ca biir le milieu divin la koy defe su ko defee ñoom kon dangay ngay yëg ni foofu liñ fay doxe mooy volonté lañ fay doxe le milieu divin volonté lañ fay doxe moo tax am fa accès am fa agse du yomb am fa accès du yomb mais il est accessible c'est la réalité divine qui est inaccessible su ko defee foofu ñoom volonté lañ fay doxe moo tax bu missionnaire dee ñëw xëy ba liñu ñu li ñu yore ci missionnaire bi mooy la ñoo tuddee base mystique xay bu dañuy contrôler missionnaire bi ba nga xam ni liy relevé wu ci domaine mystique muy liaison ak monde xay bu ak liy relevé wu ci domaine spirituel am muy liaison am ak ñi nga xam ni ñoo peuplé monde xay bu du am benn seconde bu connexion boobu di faible xay bu ñoom loolu la ñu yore liaison mystique am ak monde xayb connexion bi liaison spirituelle am ak ñi nga xam ni ñoo peuplé monde xayb connexion ñu fexe ba connexion boobu du faible su ko defee nag ñi nga xam ni ñoom ñooy saytu connexion ba di saytu liaison ba ñooñu ñi leen di tànn di leen yabal ak di natt seeni nombre mooy le milieu divin parce que bu buñ la dénkee mission universelle dañ lay booleeg ay nawamis les nawamis sont les anges gardiens du cercle restreint noonu laa ko daan waxe su ko defee milieu xayb ñoom ñooy tànn ñoom ñooy tànn sa connexion sa digganteeg xay ba sa connexion mystique sa digganteeg xay sa connexion spirituelle sa digganteeg ñi peuple monde xay waaye ñoom duñu tànn nawamisi nawamisi dañ koy bàyyeeg le milieu divin kon gis nga milieu xay am na lu ñuy def la ca des ñoom it ñu bàyyi kaak le milieu divin su ko defee le milieu divin moom soldat yi nga xam ni ñoom la ñuy tànn nga ànd ak ñoom ñuy liggéey ci connexion bi diggante xayb ak shahada di liggéey ci côté spirituel bi moom it connexion bi diggante xayb ak ñu ko peuplé ak shahada soldat yooyu ñuy tànn ñooy nawamisi ñooñu le milieu divin ñoo leen di organiser kon gis nga le milieu divin ñoom vision bi ñu am ci missionaire universel bi mooy organiser ko ña àndal organiser ko ña muy àndal léegi nag missionaire universel bi moom bu ñëwee commencé mission groupe gi nga xam ni ñooy ànd ak moom ñu di leen tuddee euh, ses compagnons groupe googu dañ leen di séddale ñaar benn parti bi ci groupe gi monde rey bu moo leen di tànn beneen parti bi milieu divin ñoo leen di tànn ñi milieu divin di tànn mooy ñi nga xam ni ñoom suñ leen bàyyi woon mën nañu doxal mission bi donte ay compagnon lañ mais mot nañu ci wàllu leer mot gu tolloog ñu mën a ñëw wuutu missionnaire bi doxal ko mission bi même moom bu fi nekkul woon ñoo ñu la milieu divin di tànn ñi nga xam ni nag millier rey bi moo leen di tànn mooy ñi nga xam ni dañu war a jëriñu ñoom ci mission bi ci wàllu lumière mën nañu nag fexe sax bay defaraale ñeneen ci mission bi waaye da ngay gis ni benn bu ca ne vision ba nga ca mënta am mooy da gis ni kenn du ci weesu moom wàllam ku ci nekk ak sa wàll le de divin am nañu seen wàll te mooy organiser ñi ànd ak moom rey bu aussi am nañu ñoom seen wàll te mooy fexe ba lieson mystique am liaison spirituelle am bu ñu soxlook monde rey bu bu ñu soxloog ñi peuplé monde rey bu connexion ba di dox te du faible kon da gis ni ndekete yàlla yàlla bu la jëlee teg la ci jamono am yan bu mu jël yan la wala mu am lum la dénk bu ko soofental parce que lu tax yow nit kiy dox soofental ko na nga yëg ni yàlla ca kaw moom soofentalu ko ndax seetal bile organisation ñaari ñaari wàll yu bokkul monde xayb ak seen wàll de divin ak seen wàll te ku ca nekk la muy liggéey bokkul ak li moroomam di liggéey moo tax yàlla lu mu dénkaane rek lu rëy la ci moom su ko defee milieu divin nag ñoom loolu mooy seen gis-gis ci missionnaire bi mooy fexe organiser ko organiser ko ba nga xam ni mission am du échec suñ ko organiser lee ba pare nag la ca des mooy dañ koy bàyyeeg courage am mu daal di doxal parce que buy doxal ñoom lay dalal seen xel ñoom ña nekk ca monde xayb ak ña nekk ca milieu divin mooy dañuy yëg ni li muy doxal ci xaqul yaqin lay tegu te bu tegu ci xaqul yaqin rek su boobaa dañuy yëg ni mission bi am na réussite tabarakallahu